asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay yi ñu ñuy teewlu à travers Dakar saa su ne mbégteeg ca waxtu la ñu àndal di jànnoog yéen tey ñu ngi nii euh, si yëmbal euh, fi la ñëw euh, ni moom mooy kër Baye Cheikh Diop di ndaw bi nga xamante ne nii moom faat démb ci bërëb liggéeyukaayam di mécanicien ay atam toll si fukk ak juróom-benn ñu tiire ko balu fetel ci bopp mu ñàkk bakkanam si saa si ay waajuram wa ay parents wam la ñu ñëw seet si tey laaj leen naka la mbir mi demee exactement waaye yite ki nga xamante ne nii moom mooy oto si garage ba nga xamante ne fa la doon liggéeyee waajuram bu góor jël ko teg ko si loxoom ñëpp danañu taataan tey eh, seen kàddu waaye it ñu def témoignage bu ndaw si ki nga xamante eh, mooy di Baye Cheikh. la ilaha illallah muhammadu rasulullah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 yooyu boobu maa ngi ko ma naqari lool. dégg bett ma lool te mu teg ci. ndax mu xëyee tàggatoo ak man. sol dàllu magam dem mag gi dàq ba ci mbedd mi nangu dàllam. ma fekk fa na ko yow dangaa ñàkk jom yaa ngi dénkaane dem 1000 francs rek mënoo dem jënd dàll. maîtresse la may wooye mu ne ma maîtresse dama nga toog lëngu ma dama bàbb ma dugg si néeg bi sumi sama daal rek daal di ko sol daw daal dem ma toog fi ba ay 6 heures papaam wàcc daal na di nga am xaalis ma ne man fan laay jëlee xaalis moom sa doom mi ngi dépanné oto te daa bëri tiitër su ñëwee fu mu jox la dara ma ne ko waaw kay yàlla baax na su ñëwee ma joxee ma jënd daal ndax dina wut jënd daal ñu toog mu ne papaam di waxtaan léegi papaam ne ma kaay gi ma ci kër gi nekk fii ndax dama fa am ngoro gu bees man ak man la ngay ngoro dama booy damay ngoro ji man dew ma dama am sama soxla may lijjanti waaye papaam tëdd fii ma génn fii dem suñu kër benn dëkkandoo jóge fa taxaw ci buntu kër gi ci àngal bi nii rek wata pause bi romb ma fees dell ak ay policier sama dëkkandoo bi ma soxna Diop yow oto police ne wàccul fii laaj la masque nooy def ma ne ko kon bu keroogee nga xam ne maa mën a daw damay daw daal dugg si rox bi dugg sama kër dégg pare guñ sax benn xaritu magam daal di may ñëw rek ma ndax ñoo tax ñëpp waa koñ mi ñëpp tànt lañ may wax ndax ñoom kër buñ ma jox daal dama xew ma ne ko lu xew buubu mu ne ma tafaa nee na bàyyi seex lañ dóor bal ma ne ko bal mu ne waaw ci ma tourné dem si ci rox weer tase papaam mu ma ñàkk nga rey nañ sa doom muy lu ma naqari lool metti ci man bëri mu tolloo ñetti at dama ko yaayam jox boobu maa ngi am sama taaw ba am juróomi weer yaayam yëkkati ko ne ma soxna Diop maa la ko jox waaye seex nga xam laa la laaj ma nekk ak moom nekk ak ñoom ñëpp nekk bu rafet di ko daanu di ko daanu fasoo liggéey bu dee liggéey daa ko dox ñoom waaye bañ màggee tamit fer nañ samay rongoñ ma dara lu ma naqari kii dong laa am ci góor xam nga ni ko yaakaaroon du ma waaye ñu taxaw ma ma opéré fi ñaari yoon ñu taxaw ma def seen alal ñoom ñu mag ñi jooyu ma añ jooyu ma reer jooyu ma ndékki ñoo ma yor dëkkal ma di ma wodd di wodd sama doom amul ñoom benn problème Baye Cheikh yaayam xoolut yorut lijjantiwul laaj heure ma ko way wax ko ci Baye Cheikh mu ne ma Baye sa doom la bu dundee sa doom la bu deewee sa doom la dem gi bett ma trop naqari ma lool ci Baye Cheikh Tidiane Diop amee jot nga faa dem gis nga. mun maa dem xale yi ñëpp dañoo dem mu ne ma doo dem dangay toog ma toog ci kër gi. sama xol jeex na torop ci Baye Cheikh lu ma naqari massa métti na lool métti na lool massa nga yar ko depuis ba mu amee ñetti at ba tey nekk ci say loxo yan seede nga ñu mën a indil ci moom na yaru rek yaru rek tooj ji mbalak fu mu toll we dooj ji mbalak papaam njànku la koy woowee su ñëwee ma tante njànku sa papa daa am jabar ju bees su ñëwee mu ne ma tànn ana njàng ko dem na jaxaay su ma ne ko dem jaxaay mu ne aagi néeg bi ak mbàjj mi fi lay tëdd tëdd tëdd ba teem jot heure bu wàccee na ma ana njàng ko ma ne ko xanaa nga yaakaar ni njàng saa yu xëyee dafa war a dem bu wàccee loolu la wax kaf ak man réew ak man bàccee amu ci moom benn so naqari dina wala benn jafe-jafe école loon njàng école bi baaxul suñ ko joxee symbole mu gàddu ko yaakaar ne lu baax la bu ñëwee kontaan tànta tey mën na jox béjjéen yi ma ne ko yow yaa bon ay béjjéen yi jox la ko kontaan da nga yaakaar loolu lu baax la lii baaxut miraan nga moo tax ci la papaam génne dugal ko garage nagam ji tim bañ ci moom dara wàccee ma lépp sama lépp fi sama néeg la may fekk takk jabar mu yor ma moo loolu yëmul si jamono ji ak doomi jàmbur nga yor ko jamono ji jamono ji ni mettee nii ñoom xoolewuñu benn bët lu may yaay ñëpp tànt lañ may wax bàyyi seex ma koy ñaanal yàlla xippee ji àjjana yàlla eggalee ndawam yamal xiyaam sama xol seet na ci moom seet na ci yaayam ndax yaayam musuma benn yoon na ma sama doom nangam wala sama doom lii man naa koy topp boo amee 1000 francs yóbbante sa yaay boo amee téeméer yóbbante sa yaay waaye yaayam bëggu ci dara dara dara lu ma ko wax ne ma bëgguma ci bàyyi seex dara lu may ñëw tooj la yebbil la njàng nga may ma sama wàll waaye soxla ma ci bàyyi seex dara mu tàggoog man tàggoo ba rafet bii xëy suma liggéey gisaatuma bàyyi seex am ma naqarit lool bàyyi seex sama xol jeex na ci moom ko rey yal yàlla dafa bu ma tàggale sama doom ji yal na la yàlla tàggale sa njaboot vraiment mi ngi noonu xolam fees na mënatu la yeggale mu doon mbir mu métti lool te day waar vraiment papa maa ngi lay nuyu maa ngi lay jaare tur bi naka la moom Modou Diop laa tudd waajur bu góoru Baye Cheikh mu ñu fa waaw maay papaam da koy mastaw bu baax d'abord naka nga yëgee li xibaar bu naka am lu ma naqari rek ndax ku xëy sa doom liggéey woor ba ngoon war a ndog si ñu doo ko balu fes ah, dina la sama doom yëmbal gi amul kenn ku benn police bu ma sa wax jàpp naa doom doom bi wala doom mool sama doom doo ko gis mbedd di ñuy taxawaal samay doom liggéey ñëw tëdd seen kër gi la ñuy def bu buur ne sakk leen ba ma ñëwee jàllu masque laa jënd jox samay doom wàcc naa dem ne jaafa di foog moom ma jox ma lu ma ndogoo ma koy mbalal waaye man sama cere soo suba sax booy damaa war a woor ndax tey jii daa wóoroo man mi tey jii daa wóoroo na woor nag ma ñibbisi bi ma ñibbisee ma toog ba si yàgg ma bëgg a teg ataay xamatul may teg ma gëlëm nee naa tonton génne ma baraada kaas yi génnee baraada kaas yi ba si ma fàtte ko ma dem ba fee jaawale daal yi ma ñëw tëdd su ma toog ba si yàgg sama xel nekk ni yar nañ xam am na ay doom ñëpp ngi ñëpp ngi liggéeyi nañu waaye moom dong sama xel nekkoon. mais ne damaa yëg ne man tey may ñàkk sama doom man man ma dem garage parce que man ah garage de wutuma fa dara daa toog rek ñu woo ma téléphone ne ma sa doom rey nañ ma ne ko laal ñu ne policier ba dóor ko bal ba seen yoon waaw nii laa ko bi ma demee ba bëgg a laal ñu ne ma bu ko laal waa am nañ fa nekkoon ay sapeurs ñoo ne bu ko laal amoo droit laal ko bi ma demee ne dem naa police police ñu nga police xam nga lu ñu jàppee nit ñi ginaar police yi moom ginaar lañ jàppee nii ndax nit mun nañ carré 6 heures. ba onze heures guddi te mu leen kaa jël xam nga du yoon temps boo dafa def na fa six heures lañ ka ba dix heures te onze heures parce que mun ñu kaa jël police ñëwul te ndax xam nan lan def hôpital bi ma daje ba demee dem xam nga du ñu ay policier ah dan ma ne yow da ngay jël néew bi andi ko ba essence yëmbal xoola fi mu dee fii ma dinaa gàddu yóbbu ko essence yi ma kon ka ñu rëyuñu ko police dina doxee noonu. léegi nag man sama doom ji baaluma kenn du àdduna du alaaxira du ma baale kon bu wax day leer baalewuma ba àdduna baalewuma alaaxira baalewuma te alaaxira na mooy fu dëgg fi ku yaakaar na fii daa wéy nax nga sa bopp suul naa sama doo jabar suul naa sama doom te sama doom ji boo see dara métti koor koor ga mu deewee sax xam ma xam xale bu ndaw woor ba ngoor ab di ko fe dóor ko ba bu dee daa yóbbu léegi de si si damaa mu deful liggéeyam si nga gi waa yëmbal rey rek lan fi nekke fekkee ne da dana ay rey nit ñi nag ñun pare nan bu ñu jënd suñuy doom ñun pare nan kenn susuma rey wax naa ko police man duma ma dee benn police dema ma rey du dee nit di rey du mujj fenn xalaatatuma ko sama dund gi sama doom yi barke Babacar sama yaakaar képp ku ci faat police faatatee nit. bàyyi boo nga xam police bu ma dajee dinaa la faat nan ba sama doom yi te buñ bëggee rek xam nañ fi baan yi nekk ñoo gën a baan fuuf nan bàyyi sama doom yi sama doom yi nan leen ba nit ku nekk ci kuy ku nekk ci kaw tali du nga kaw tali mën ngaa dóor balu fetal waaye roomu nit rek ab ruq xam at leeb ruq la ruq bi jaar nii ruq du ab dina ngay room di trafic ruq ab jàkkaarloog ay nit di dóor balu fetal xam loo jaaduwul ki ka ki mu njëkk gis da kaa njëkk daa gis bal bi moom naroon na dee waaye moom dafa taxaw na xujju rek xam nga am njoola ku gaar si bokkuñu waaye kooku daa waaf bal bi dégg naa fii la ka dal yurgu sottee buusewul yëngatu ba mu ñëwee ñuy wax oh, aw kii moom ma ñëw police dem police police ñoom ginaar lañu jàpp ay ginaar. parce que dama fee man police du rey sama doom man dee moom ak a gënal te man dong du ma dee man Bill Diop du dee man sël xalaatutuma ko. përis rayet sama doom man ma dee man dong xalaatoon mu ko dee benn yoon la te ku ne dëgg nga jël sa wàll bu doon dund ak nguur gu neex la yonante bu du dem nguur gu du nguuru yàlla day jeex nag 60 ans doo ko wees ñu fut say kenn nangu say carte nga dem sa yoon kon rey fi nit nit ñi nañu xool li ñuy def xalaat na suba dañuy taxaw ak jàkkaarloog sunu borom lu fu waaye waxte àdduna da nga ko waxaat man nag sama doom ji dama bëgg ñu jàppale ma ci taxaw ma sama doom ji ñu xam li ka rey naa xam ke rey police xamuñu ko ndax autopsie bi pareegul nee na lënd laa gis xale bi jotaguma ci xale bi mair yi nag woo nan ma fii am na ñu ma woo waaye gisuma fi kenn. autorité ñëwagul. gisoo guma gisu kenn ñëw fi ay téléphone nag lan lay woo waaye gisuma fi kenn buñ yorul dërëm mën naa rek la doon man yoru juruma koy torox man mënuñu maa torox loo. ndax ba may takk aawal 19 ans laa am ku takk aawal 19 ans yor sa bopp gisoo ndey gisoo baay di demal sa bopp ba ak fi ba jug juróom fukki at say doom na la nopp ñu xëy ne bëgg a faar sama bopp policier ma doon rey sama doom duñ sama doom bis buñ ko nga man xaw ma ku ko rey waaye dootul rey lu sant Diop sama doom man nag xam nga lu ma dal sunu borom moo def dee mu seet waaw su ma toppoon ñoom wala ma topp yëmbal police dootu amati yëmbal waaye nag dafa am na ne comme na si si dañ dëkk bi dafa am yoon bàyyi nañ kaak yoon ne yoon def liggéeyam waaw non dossier bi il faut nga jël sa doom ba la wax dossier bi am na kayit bi ma jox waaye damay suuf sama doom ba pare doo bu toog sama dossier ndax feeg mi ngi fiy dugg doo am jaam ay rakam dañuy jooy ay magam di jooy nit moom feeg mi feeg denc ñu ko kenn du am jaam di ko denc ko doo nga tax nga am jaam moom liggéey la def woon sàccul fenul amoo tooloogul fu muy amee xaalis mu dëggale ma soxna si man sama doom man sama moom mi baayam ba mu ba si nga Dakar Dakar laay liggéeyee musuma toog si temps yi du ma toog ba midi dem def la may def dem sama yoon man nag dama fee nekku ñi benn fu ne yëmbari du tey lan rey de tey mooy troisième fois te ñoom dafa yaakaar ne dañoo am nday jax na bu nu reyee ñu tege leen ci tànk lu loo waay def àdduna da nga ko lijjanti nan xalaat suba ki sama doom ñaan na yaaru jur doom te ñaanu yàlla doomam ba pare ni room ko door ko bal nañ seet li ñuy def bal daa am fu ñu ko war a tiiree loolu dof-dof yoroo ban fii fekkoon daa fekk sa mbooloo mu dajaw wala nga ci ñuy taali pënu nga nga ne si nga bu ko fekkoon ñu lay kay affaire yooyu sama yoon nekku ci du ma ko jël waaye ga te garage la ko pompier jëlee kuy ma se du sa biir garage sa la fa. te police di ma wax ne jëleel police ma jëlee ko hôpital bi yóbbu ko ba essence yi yëmbal ñoom ñu jël si ko waaw police yëm ñu duñ seen fowukaay duñ seen ginaar commissaire bi sax mënu ma a ma si na la dafal barke ba bakk tag ma defal li ma bëgg dama bëgg ñuy xoolaat seet seen digganteeg seen borom ndax fi nga fii bakkan bu mos dund da nga mos ku lu naaw seen zaay bakkan bu mos dund da nga mos dee kii wàllam la jël sama wàll ngi ñëw ñi ka rey ba noo toog fukki nga dégg kun ci suul kon rayante bi amul benn intérêt man nag sama doom deful waxul rey nan ko mënatumaa jot sama doom waaye naa fexe nan ma wax kan moo rey sama doom waaw loolaa am nga si droit ay atam si ñaata la toll Baye Baye Cheikh la la onze bii dina a ah, ñëw onze mars bi lay am dix-sept ans waaw carte ma ngi si man fii ku fi toog am cinq ans am nga carte d'identité kon seetaanuma samay doom fii ñoom seen boobu sax dañuy rom booy booy 6 ans yi dina la wax sama doom yi dina la wax ana seen i carte d'identité ñu génn ñu leen booy yi dañoo taxaw maa bëggul ku ma fooye ma Diop laa sant kon du ma fooyee kenn man buur bu ne def leen nangam lam santaane ndax moo fi nekk ñoo ko fal lam wax laay def police yi dama leen respecté nan ñu dañ leen a fonk nan fonk peuple bi ñun duñ ay ginaar pondeuse xam na fu la neex a dër bal nga dem régler ko mu jeex bàyyi seex baaleewuma ba alaaxira ba ñuy dekkiwaat doomu ñun sax dee danaa man jàng naa alxuraan xam naa ne bis tey jii maa ngi wax est-ce que suba Baye Cheikh na ñoom ñi ka nañ jooy seen bopp Baye Cheikh ba mi dee koor la dee man dama kaa ñee dogul lam bagage mu yoroon lañ ko reyaale lam yoroon nii ci loxoom mburu mam jëndoon nii ndax suba demee mu rey sama doom ci ngelaw bàyyi la yàlla na ma yàlla àtteeg yëpp bu fekkee ne yàlla moom mooy yàlla moom mën naa seetaan waaye ak mën a faj yàlla mën naa seetaan wala mën naa faj sama doom yi nga xam ne xamatu dara nekkatu ba démb la ma kenn xooti ñaw ñaari ñaw nga fe ñu ñëwaat ma daam neel ma ko xam ne ma kaan jënd biton yi lañ doon jënd démb rakam bi mu bokkal ndaay ak baay bi toog moo toog ci moom téer la ke ñu ngi fii ci kër gi ay ay xale lan dama leen la bu leen génn seen i diplôme boo demee seeni i fa ay diplôme lañ fa tam forum ñu métier man joor moo fi wane danoo dem ba jàng jox leen diplôme waaye dañuy ay gono moo tax bëgguma ñu génn ndax bu xamee fa ñu jëm dañuy dañ àgg ma téelee kër gi xale bu ko neexoon man na mën naa dem sama yoon waaye su ma meeroon tey fii damay toog ba si àgg ma soxla cinquante mille ma dokanee damay xool ku fi nekk ma dokanee su ma dokanee dañuy seen biir. sama papa moo dokkani ñu ne sama papa nee dinaa ko jox cinquante kenn taal su ma fi see kenn eh loo fiy def nga ne waaw papa nga ne fi di dokkani ah ma ne cinquante mille laa dugg di seen seen biir day eh, cinquante ñu jox ma barke Seydou du ma gërëm nag ku ma deful dara bàyyi laat lu mbàkke loolu la waxoon man du sant ku ma defulul dara waaye nan ñu jox respect sunu doom yi ñu balee nag respect buñ la buñ fekkee sama doom ci kaw tali bi muy muy muy saani xeer nañ ko tey condamné may naa leen ko dama laax lu leer sama doom fu mu ko fekkee ci tali muy dawal vélo dama koy mbëkk oto moteur bi ma ji de moom koy moo tuuti tuuti moo ma jënd moo ma oto xale bu daw mu bëgg ju faata ba sama doom xale bu ndaw maa yaam tàqalu ko nan ku waa xale bi daa ñëw dafa mu rafet ndax bu amee xaalis. na ma papa man kay xanaa yow booy ah léegi da ngay segale mais ah ñaari camp ku mu njëkk a dar rek foofu la ah loolu mooy ñaari camp laa fii du ma fii ba mujj gi dama koy wax léegi yaa boo bëggee dara nag moo may rab jox ma mu wax non yow doon wax dara ma koy wax mbala gu ma nan dem yaa na ku ma yóbbu ma ne ko bàyyi Cheikh Alay dawal mu ne bàyyi sa mu dawalati ma ne ah, métier la te man lay àndal moom mën naa dawal yenn saa yi day dugg sax ma ne ko bës a mu bës am sama xëcc quatrième wala troisième mu tegg dem yoon te day dem ma ne ko bës a am mu bës rek ma def ma gën vitesse ma ma soxla mu tegg dem yoonam mu dawal net su demee ba gaarax ma nangu oto bi dem xëy liggéey Baye daa ku baax la xale bu baax la woon ndax xale bu demee dee koor xel dal na. waaye nañ seetaan rey fii ginaar yi ginaar la yàlla santaane nit ñi di ka lekk dara du ko ci waaye nag boo rey nit kay wan nga see mën a def dara waaye fekk nit ka xam ne deful waxul nga xool garage ba ba mu neex la rooma rek dóor bal fetal barke Seydina Mohamed noonu la demee bal da nga kaa doo yur fetal lañ ko dóor te bopp yur ko sotteeku booy bi yëngatuwul yëngatu defu xale bi bal doy yuur gi sotteeku mu daanu mu ne këpp ñu na deena deena deena deena te xalaat na ñun ay jullit lañu sëriñ ñi ngi seetaan àdduna te ginnaaw yàlla sëriñ si lañ yaakaar àdduna ak alaaxira alaaj abdu bu fa Sénégal am fa alaaj day day jëloon àdduna yëpp woote ndete ñii moo ñunu dëkk bi dañ kaa dénkaan waa du santu Jóob santu Saar maa ngi nañ jóg liy dëgg ñu wax ko te xam ne dafa am ñu topp seen ginnaaw te ci ngeen lii raam ti ñag bi lay jëm ta saa yoo fa àggee dindi ko du yomb ku war wàcc yoon na la jaaral la yoon kenn bañu ko waaye nekk fi di raaye ku ma am ndaye ku ma amul nday si nga fi toll man maa ko xaaratu dee dee rek la ma defee damay dee sama doom yi nañ leen ba fa fa ñaar far ñu rey ñu ñu fekk garage boobu moom police bu fa duggatee rey leen boobaa na xam ne bis bu ñu duggatee garage rey fa benn picc te si sunu famille nan pare bay boobu ñu armé boobaa caaree gaar man soxla dawuma Tuubaa dawuma Tiwaawan dawuma Cana man caaree gaar lañ may suul samay doom fa ma ko suul caaree laa koy suul bu ma dee ñu suul ma ci عليك صلاة الله ثم سلامه مقامك محمود لدى الحشر تشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله lu metti loo xam ne metti na ñëpp parce que man ak ni ma présenté woo ku ma xam tey gis ma écran di nga xam ne kii wax du tey la jëkk wax ci écran damay jóge fii yëmbal di dem ba tribunal di fa taxaw ay xale police yëmbal bii bu fekkente ni fukk yu ñu war a dox doxalu ci dëkk bii intervention cinq yi dëkk bii moom lu fi mën di am justice moom dinañ ko dox ba mu tegu ci yoon lépp sama kanam la mën naa ko wax te yàlla tax parce que ku dee dañ lay ber sama soxna du ma topp samay njaboot duñ ma topp te billaahi lazi laa ilaha illa li may wax xaw ma naa yegg sama këram déet wala wax mu yegg yàlla la neex kon tey dama ne leen woon bu laajee dem jënd bàqee tableau sax billaahi dinaa dem jënd ko ndax xale bi nañ ko rayee ci sama kanam muy bal réel vrai réel tiire bopp bi bënn yuur gi sotti te action bi yëpp dinaa ci ñëw ginnaaw bi ma santee yàlla na julli ci sangub sang yi Seydina Muhammad sant sama ñaari waajur sant sëriñ Touba Xaadim Rasul mais sant mbooleem tarixa bu nekk ci àdduna li leen waroon lépp def nañu ko lépp mbir mi xalaatul woon mu agsi fii bu yàlla dogaloon ban ne copp ñoom ñëpp ñu def intervention kon bakkan du tëdd waaye cas viol lañ waxoon waaye dem nañ ba léegi bakkan tëdd ñun nag kenn ray ci ñun deful violence marsul dama koy wax ba ñëpp dégg ko. bokkul ci manifestation ab xale bu góor la jàng si métier am ci atelier bi bi affaire bi amee ñu woo police mu nekk benn euh, benn foule bu jóge ci station bi jëm ci mairie bi. ñooñu traversé jàll bi ñu traversé fekk nan ma tëj sama atelier ak kànnaar ku xam-xam ni man du ma dox ci violence parce que kuy doxal ay jàmbur say emprunté taxu la wax fekk xale yëpp sax dafa am benn doom ku nekk maire bi réeroon muy Cheikh Tidiane John ma koy nuyu au passage ñaari doomam ma xale yëpp ni leen dem leen wëri te xale yi dañoo woor kon kuy dox ci loolu doo dugg ci ay manifestation manifestation nag sunu doom deewu ci nit moo am intention jël mate génn ci fenêtre auto police bi rey cas bi ni mu demee mooy qu'est-ce que orange monnaie moo doon tàkk ñëwoo police ci buntu mairie bi ni leen ñëw leen ñu ñëw def intervention am nañ ci que ñun lan fi nekkal bi ñuy dem ñu ngi jàkkaarloog man ma génn ci atelier bi téye xale yi kenn génn bi ñu demee ba fay ba pare ma génn samay xale ni leen dem leen ñibbi amoo ci droit xale bi nu rey bi ñu koy rey mi ngi egg saag dëkkale ay loxoom tax huile am na benn kuy liggéey ci mairie koo xam ne ñu ngi koy wooyee su ma juumul euh, euh, euh, dinaa ñëw ci turam ci kanam. moom la doon montel ma tëram barki démb xale bi wallahi asim ku dee dañ lay ber mën leen génn leen ñibbi ñoom fay na la ñuy fay ba pare pourquoi pas ñu taal seen oto demaat ci station ba ful ba am fa manifestation ba am pour comme benn escosque orange monnaie moo doon tàkk xale yi ko fay daw nañ dugg mbedd jolof marin vidéo yëpp a ngi fi même buñ tëjee chaîne yi même buñ tëjee chaîne yi yi léegi télé yaa ngi ci kër yi image yaa ngi fi loolu nit faa ngi kenn du ko jeex man nëbbutuwuma dawuma ci yokkaa li ma bëgg mooy ki ma entendre yor dossier bi laaj ma ma wax ko bu mu yombal bu mu jafeel na def liggéeyam muy adjudant bi parce que papay booy baa ngi ne man bi affaire bi amee bi ñu dëppee ñoom dañoo ñëw ba tolloog ñun ñu taxaw croiser les bras ñu visé mettre ci fenêtre yi ci fenêtre yi 4x4 bi oto boobu dama ko daan dépanner man oto boobu bi yëmbal di sos fii police billaahi lazi laa ilaaha illa llaah écran laa génn bi nu ñëw indaale woon velo sama oto oto baarandooy sama patron wala oto Maguette Diop patron yi dañ may yee par guddi laajal commandant Gadiaga mi ngi may dégg bu faatuwul te yàlla na ko fi fekk kon ñun social bu ne dox nañ ci mais suñ demee ba sunuy xale wax dëgg yàlla tolluwaay bu toll ni ñu dem ba rey leen ci ci ci as ci rien du tout neexul ñoom ñoo ñëw ba sama atelier visa ñaari bal benn bi moo dal booy mu dee beneen bi ci def dafa mel ni dañoo am intention rey ma wala rey sama naw lay ma taxawal mu génn waat deuxième coup billahi wal bu booy bee jëkk mu doog a agsiwaat ci man nga xam ni waa ji bi mu gëddee oto bi accéléré ko oto bi dafa xaw a drapé fekk waaj ji mu dugalaat na pistolet bi soqiwaat bal bi billaahi lazi laa ilaaha illallaah damaa romb romb foofu Modou Fall ñoom samay témoin romb Pape Dieng jëm ci benn femme boo xam ne mag Alima Ndion la bu nekk seen TV magam bu am benn tut fii am yaram bal bi fii la ko jaar doo ko dal ci sama zingu atelier deuxième coup bi

doo ko ñëw ba ci atelier bi fekk ay mécaniciens yu taxaw sol seen i tëli yoruñu xeer fi looy mun am ku taxaw ci seen kanam ku leen di jëmmal seen jaatigi parce que man li ma fa nekkee mooy Adama Thiam mi ne ci sama ginnaaw muy bu xees bu xees moo seefu Tafa Tafa seexu seefu Baye Cheikh Baye Baye Cheikh mi gaañ Baye Cheikh mi bàyyi ma ma ko jébbal jébbal ma Tafa Tafa méccam da koo jàng ba man ko doog a ñëw foofu yàlla dogal Baye Cheikh rakkam ñëw fa mun ma yow laa koy jox mu jébal ma ko bàyyi ma ngi ni di ma dégg ma jël ko charge jël ci responsabilité yëpp muy sama doom mais comme Tafa magam la ñoo bokk leen bokk bokk seen baay ma ne ko Tafa mii mën naa yor bàyyi Cheikh parce que man sama toog bareetul damay dox ci social chaque jour intervention laay dem kon na kon njaboot googu yëpp sama njaboot la ñaari patron amu fi mon ndongo Baye Fall mooy patron xale yi bu convocation amee moom la ñuy jot bu xale yi defee bisit ci dëkk mbaa dara ñoom la ñuy woo moom la ñuy woo lu ma a am moom la ñuy woo kon man lan rayal rayalul kii papa ma nga ne yoonam nekkul ci CV lu dul dina topp dossier ba doomam xam ki ko rey ñu teg ko ci yoon man bi affaire bi amee rek ma nettali film bu garaaw ci sama kanam la dee kenn ku ne xam na ni man ba ma gënee àdduna ba léegi tey laa mus a gis dund naa lu ne billahi la ilaha illallah dund naa métit bu ne dund naa malade mental dugg ci àll bi souffrir jaaxle samay mbokk ànd ak man samp ma may ferte yëmbal ba ma fajoo ba tere damaa ñëwaat sampaat yëmbal di dox waa jaa ngi nii barki Serigne Touba di dem tribunal di taxawee ay xale man du ma violé police laaj leen ful bi demee tey ci suba maa dugg police génn ñu ne sama ginaaw mu leen leen bu ma kenn téere bal laajal Bodian ci la bokkoon ku ma cité ni ko Bodian ndax man geen maa may ma jiitu leen jéem a calmer booyi balaa beneen bakkan a wadd Bodian ni ma non danger la ma ne ko bu yéen bu leen ma tiire yéen ñi ci sama ginnaaw rek ma déparé buntu police romb cinq éléments rombaat 4-4 bi rayon sama sama emprunté pour intervenir balaa dara amaat billahi lazi la ilaha illallah ku dee dañ lay ber te soxna si nee naa la bu desee tey ma jënd 7 mètres percale benn baraak dem jënd tableau bàqiya sama fit àgg na foofu gaa yi xam nan ma du ma dox ci hasard kul weddi nag laajal Ibrahima Diouf mi fi nekkoon lii nag dafay bari danoo bëgg mu jeex yéen ñi nga xam ne yéen ay presse bi seen yu mag yéen yëpp tëj nañ leen léegi kenn ku ne fa nga mën a waxe ngay waxe Dakar Buzz sama chaîne ma leen di nuyu au du ma jóg ci di ko seetaan keroog bi mbir mi ne càpp sama kër laa nekk Touba lépp ci laa ko seetaan billahi lazi la ilaha illallah du seen jëmm jee tax bi nga ñëwee dama laaj ban chaîne la nga ma Dakar Buzz man la sama chaîne la ci seetaane information yëpp dama ne buñ sonal dafa jeex raye bi di am yëmbal yeex naa am police daawoo fi dégg yii ñoo ko def maa assumé sama responsabilité wax ko exactement kan moo. benn tur am na xale yu nu rek xàmmee na mais ki ne ci biir oto ne ciy giri mënoo ni di waray mais am na ci xale yoo xam ne boo leen dajale woon tey ñun la kii la kii leen estimé kii leen xalaat ni moo rey parce que xam nañ ko ñoom xam nañ ko bi ñu demee police it cas bi ni mu demee dinaa la ci dikkalaat parce que bi déegi amee entre tumaak sama sago parce que lii maa ngi koy doog a gis ne laa la dund naanu la mais tey laa mos a gis kenn xamul lan la soxna si ma submeeku sama yére daw topp ci oto bi na leen na leen na doon ñaari néew ñu rëcc ma parce que oto nit mënu koo daq ma daanu xiif mar jooy ndax leen rey xale bi sama kanam rafet na ma topp oto bi nit ñëpp téye ma naan nangam sangam ma ne leen nag léegi am nañ droit am sañ-sañu dox sunu ñaxtu nan dem police dox sunu ñaxtu ni leen rey ngeen seen élément billahi wal kitaab bi ma wootee kenn ñëwul moo may jox xaalisam ma booleeg sama xaalis heure bi waroon naa fekk ñu def heure plus nangam yëmbal maa ngi moor mais ci social ñu dem police xoolal sama ginnaaw léegi boo paree lépp laa lay wax ak sama tànk ak sama yaram ñuy xuus ñu may dóori lacrymogène di ma dóor di ma dóor ba ma xuus ba génn ba dem ba buntu police dugg ci police ni leen danoo rey sama emprunté jàmbaar wàccul xare xare boroom a koy nettalil boroom barki Serigne Touba xare boroom koy nettalil boroom donc sa micro koo xam ne leneen lu la ci waaye wax lu dul ay témoins ñu fekk billaahi waxuñu lu xam ba ma àggee accident ba ma recevoir entendre ma ne ma sa empreinte la man la ko sama empreinte la accident bi c'est mon ami maa ngi koy nuyu au passage mais li dossier la amul affaire de doomu ndey amul copain parce que dafa dee na ko teg ci yoon sama dossier bëgguma ko yokk bëgguma ko wàññi bu ma ko kenn gonfleel bu ma kenn daggal ay wax di yokk mbaa wàññi wax nan ko wax ba Macky Sall dégg ko il est responsable il est kii dafa ñàkk doomam ci anam bu ko naqari duñ ko bàyyi dama indilaat la beneen cas mooy Ilimane Touré yaa ngi dégg jamono yee passé ñu rey ko faat ko jëli ko këram sans convocation dugal ci taxi ci benn patron bu ni big boss la transitaire la fay la nekk am ak moom problème au lieu que convocation mu dem fay ñu jëli ko dóor ko ba mu kawte dugal ko police yëmbal ñu woote waat en police jële ko yëmbal war koo yóbbuwaat sans sans convocation booy bi ñu yóbbu ko xooma foofa la dee xooma ci yoon wi ci toll Ilimane Touré ki jabaram ak ki doomam ñàkk na Lamine Touré fii la ñëw léegi wax ci réseaux sociaux dafa doy dafa doy soxla yi ku dégg xam dëgg ni dëgg gi man du ma dox ci violation fun ma woo ma wuy leen fa commissaire bu bees bi mosuma xam nu mel dem naa police bu ñëw xaw ma kuy commissaire dégg naa rek ñu jox ma téléphone naan waxal ak kilifa gi mais pourquoi mu ñu assigné ay responsabilités en tant que commissaire ñu tànn la ci gox indi la fi yëmbal gii musta am ay crime musta am ay raye lu daan am problème kër grand sëriñ lañ koy arrangé wala kër chef du village wala jaraaf ba ñu ngi fi ba tey mais ñoom ñoo fi ñëw samp seen kaaraange ni dañuy aar ba pare wëlbatiku di jël ay métti di tiire ay bal soxna si wax bu ëbbee bu xool fay sa rek leneen mën naa am te wax mu yegg yàlla la neex te njuum te dafa gaaw te gaa yi léegi dañoo am habitude ngay wax ñu jël ko ci yow ñambaas ca nan ma waxal li ma wax buñ ma ci yokkal buñ ma ci wàññi di leen ñaanal nag li ngeen def wax dëgg neex yàlla mun ñu leen a fay Dakar ba danoo ñaan yàlla ngeen dem ba mel ni RFI ba président yi génn di dem di waxe ja RFI bàyyi seen seen fii te seen yi mën a dem ba àdduna wërngal këpp wallahi azim dama leen di ñaanal lool parce que dëgg la yàlla bëgg na tëj seen yëpp te ngeen des fi même bu leen tëjee maa ngi sama portable sama Facebook laa wax biig parce que dañoo tëj sama connexion daggal ligne bi jaxase dëkk bi ma dugg Facebook publier ko sama empreinte lan rey ki sama kanam dafa métti dafa métti dafa métti nan ko teg yoon mu leer loolu rek la amul leneen lu ma ci wax nan topp dossier yi ko man mu bañ ni dossier yi fi amoon ñu xam ki ray suñu rek dossier bi fi mu toll mooy police ñëwul sax def intervention ba ma demee wax leen ko dañ ne yàcc na yasar toog kenn ku ne tekki say tànk say gaa ak say mas ñu ñun yoruñu dara ñu protéger wu ba fees takk ay la karomosal ñu dugg ci seen biir ñu doon ñu ban bëgg a dee dinaa la woon samay gaañu ñu taxaw ñun en personne mën leen nan dem ñu ne duñ dem mën leen ràññee nit di seen mu ñëw la di ñun ma duñ dem sapeur pompier fa la ñëw ñëwul fee yëmbal marin commune Daouda Ndiaye monsieur le maire ñëwu fa police de sapeur bi dem taxaw ak oto bi ralenti fu ñaata minute ñaata heure maag papay xale bi ak samay témoin vingt deux heures nga naa ma vingt heures ñu doog faa jógee nii dem leen ngeen defee ngeen arrangé foule bi waxtaan ak ñoom bu ko defee sapeur ñoom leen yéen nag su ma yëgu leen ngeen masque wu def ko bala moo yàqu que kee bopp bi yuur gi ko dóor nañ ko bal yuur gi sotti ñun man ndax bal réel la ndax bal balance la mën leen eh a ma gën a xam. xam ngeen seen liggéey lii bu mu am naxa sax loolu laa nekk police defal naa leen roy tey police maa joxe sama bakkan ñëw dugg ci ñoom romb seen i élément romb oto bi rayan sama booy ni damaa bëgg a sama fuul ñu ma dañ lay gaañ boo jàng mën na maa seer ak ñeneen am na ñu xam ñu bari kon du ma violence maa jiitu lakaro masal yi tàkk leen def nii di leen def nii reculer leen reculer leen reculer leen ba ñëw ci essence bi ñu daal di may rëccati ñëw mairie def tout droit mairie ñëw jël ay panneau di ko taal xale yu daw am mag muy daw bokkul ñu jiitu ma ñëw taal fay pënu ma dem maire taxaw fa ni leen bu ngeen taalee maire bi taal leen maire bi suñuy këyit fi nekk maire bi ñoo ko moom Daouda Ndiaye moomu ko danoo war a voté ëllëg li ñuy xeex xam nga lu nu koy may mooy carte parce que nee naa leen président Macky Sall ak mu toll man xaw ma reculeem xaw ma bañ a reculeem mais ñi nga xam ne ñun ci seen ginnaaw lañ topp muy kilifa yi wax nañ mënuñu ci dara ñun mënuñoo wax ba mu def mënuñoo wax ba mu def soxna si il est temps nag maire laa taxaw booy bëgg maa taal man négocier ñoom négocier ñoom maire baa ngi may woo di nuyu abuli attaché cabinet maire mi may dégg téléphone ak lépp xam na li xew man du ma violol li waa te bu doon police dongo kon maire yëmbal tàkk tey kenn gisu leen parce que ñi ma mënoo génn mais maa taxaw te sama loxo ni leen taalaale leen ma bu dee da ngeen may wekk ponu taal ma sax wékk li ma ponu taal ma mais maire bi ñoo ko moom kenn du ko taal dafa doy ñu naan boo yi danoo manifester wu danoo violol li waa amuñu amuñu amuñu autorisation nangam sangam fii xoolal ay mécanicien yor ay tëni deeg seen tëni seen loxo takk takk takk huile kale yi nekk ci booy bi mu woor ba ngoon yor ndogu mburu ndogoom ba ngoon dog 17 heures 18 heures ñu rey ko barki Serigne Touba papaam ñëw na ci atelier bi waxtaan ak moom kaf moom et cetera barki démb papaam a ngi di ma dégg bil ñu koy wax mu jóg dafa ñëw ba sama atelier ma xale yi yow laa ko joxoon ëllëg yow man xiyaam dinaa la laaj règlement de compte noo leen yore ak noo leen yore ma ne ko na ci sa xel dal toogatuma maa ngi fi mais Tapha ak bu xees ak booy ñu ngi def li leen war booy du am benn plaignant bu fi am na sa xel dal billaahi mu ma koy dénk ni ma damaa bëgg fan yi sax ma wutal ko permis su ma ko wutalee permis rek retraité comme Tapha am na permis booy nii nangam sànga ma ko bil yow jàmbaar nga lii lan tàggatoo ma ak bil mi ngi nii bàyyam du ma fen mun ma njaboot gaa ngi noonu kon am naa audience taxaw wax publiquement mun ndongo Baye Fall lu ma ci góobe gar ko dossier bi na tege ci yoon na na leer parce que lii dafee mënoon a ñàkk xale bi papam mu mu jóob tudd yaayam yaayam Awa Sarr Awa Sarr nag du fa du Adji Sarr de Awa Sarr mii billaahi du Adji Sarr billaahi du Adji waaye nag lépp dina leer Macky Sall dina leeral li te ko ci yoon ki nga xam ne moo jëloon ay ay nitam ni leen nan leen dem jël responsable décret jóg ñun nan dem yëmbal tali mare kooku xam na ma xam mi ngi woon ci oto bi na wax ki ray ñun ki ray rek lañ soxla parce que police yëpp mënuñoo bokk ray mais ki ray lañ bëgg mu leer affaire Ilimane Touré ñi leen ko nëxës nëxësal affaire Ablaye Wade moom la xale boobu ñu tuddoon Ablaye Wade ñi leen ko nëxës nëxësal dossier yi dafa bari yu nekk tribunal yoo xam ni dañ koy nëxës nëxësal rek def ci xelu nit ñi leneen soxna si wax dëgg neex yàlla li lu metti la suñu xool jeex na mënatunoo wax bon li ma la wax rek li ma la wax rek tooñ na nañu daal tooñ nañu yéen ñi nga xam ne nag ku yuuxu yéen la yaakaar dootul leen suñu yuuxu ci président Macky Sall mu gis ko Marème Faye Sall gis ko xam ne dafa am doom Amadou Sall moomee mi ngi fii war ay otoom yu lex est-ce que booy bi nu rey mënut a woon nekk président wala député wala ministre am da ngeen defe ne ku jàngari warut a doon dara dafii di ko denc soxna si man yàlla na yéex bëgg na maa gunge sama njaboot ba ca kan dund li mag ñi dund liggéey ci histoire u Sénégal comme mag ñu baax ñeneen ko fi defee woon mais billaahi lesi boo duggoon ci samay vie privée nga xam ni man ragaluma ragaluma loolu rek laa amoon lu may dénoncer pour wax ni leen police seen liggéey moo compétent wul parce que ñoo yor suñu kaaraange ba pare wëlbati ko dinu rey wax leen ndax neex na léegi nag léegi nag nu ñuy def ñun parce ce que dañoo man a révolté wu rek dem daal di police taal ko wala dañuy dem fekk Macky Sall palais duñ ko def leen war mooy lii dem ci média yi wax leen li xew wax leen cas bi ni amee parce que lu fi am ñu jaxas jaxasee ko jax nañu dimbali lillahi wa rasuli dossier bii ñu tegal nu ko ci taabal fi mu war a jaar ñu jaar fa ñu am ndam mbaa ñu ñàkk ko lazi laa ilaha illallah manifesté wul yoruñu xeer yoruñu appareil filmé xale bi dafa dee ak teni travaayam ak ay loxom taq huile billahi wallahi boo ma doon indil ay seede si Baye Cheikh Diop tey ban genre nit la woon oh, mënu woon a gudd fan Baye Cheikh ku sotti bi police ñëwee ñëwul jël ko ñoo ko jël yóbbu hôpital Dantec ma nga bi mu demee léegi papaam taxawu na ko taxawu taxawu taxawu moom moo demoon moo koy woo téléphone di jokkoo mu ma nekkoon fii ci kër gi waaye xamal ko nin ko lën ni nga ciy jot nee na leen nag na ngeen ma dimbali ba sama doom biiram bu ko kenn xotti biiram bu ko kenn xotti dañ koo dóor ci bal ci jë bopp bi toj yuur gi sotteeku kuy autopsie na ñu dimbali ba na nga xooli bal seet fu nekk mbaa leneen mbaa leneen waaye biiru xale bi nan ko baax ñu ko ormal ko xam ne julli la nitu àjjana la billahi lazi la ilaha illa allah dee na ci anam woo xam ne xalaatuma ci moom ci addunaam parce que sax xale la woon man maa doon wax ay 22 ans 22 ans mais papaam nee na ma sax matul 22 ans ay 17 ans la am xale bu ndaw foo ko fekk ba ñi nga jëkk a gis seetaanal youtube yeeg statut yeeg xale yeeg ñoom seen xale bi soxna si li rafet na lii ku mu doon sa doom di nga ko nangu président Macky Sall dafa am doom Marème Faye Sall daamam dafa am doom tey lii bu daloon amul Sall tey jii kenn du ko lijjanti kon na xool ci loolu ba moom. mu ñëw leeralal nu dossier bi dossier bi rek lañ soxla mu leer ñu xam ki rey kese.